kon loolu moo tax ñu taje ci li nga xam ne moom mooy association bi booloo ci euh, ngir nag mën a xeex ak euh, réclamer li nga xam ne mooy suñu àq ak yelleef tey nag ñun li ñu bëgg moom mooy ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall dégguñu euh, te mu jël li nga xam ne moom mooy suñuy mbébét def ko li nga xam ne soxla la ndax li nga xam ne moom la ñu def ba fii ñu toll. Euh, rencontre yi ñu am ak responsable ministère de la fonction publique yi daanaka jëlewuñ ci loo xam ne mën nañ cee sukkandiku te nag xam nañu ne euh, ñi nga xam ne euh, ñu bëri ci ñun am nañ ay dossier ci fonction publique depuis début li nga xam ne moom mooy processus recrutement massif bi loolu nag ci processus recrutement massif boobu xam nañ ne loi d'orientation sociale bi dafa ne Euh, téeméer boo jël euh, fukk yi ak juróom dañ koy réserver ñi nga xam ne ñoom ñooy waaye laago yi amee ay ay lijaasa loolu moo tax nag ñun euh, li nga xam ne moom la ñuy laaj moo di lan moo tax ba tey muy am ñi nga xam ne ay waaye laago lañ di amee ay lijaasa ak li nga xam ne moom mooy métier ba pare nekk di chômer ba tey ndax xam nañ ne fukk ak juróom ci téeméer boo jël

ngir recrutement ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, woy laago yi amee ay lijaasa li nga xam ne tamit def nañ ko ci ay démarches euh, euh, ci ay ci suñu diggante ak ñoom ak li nga xam ne moom mooy ay correspondance maanaam ay lettres yoo xam ne bind nañ leen ko amuñ ci benn tontu loolu moo waral nag ñu egg si tey ci doxal li nga xam ne moom mooy suñu deuxième plan d'action muy marché bi ñu def ngir nag yéglu Euh, ki nga xam ne moom mooy président de la république mu dégg ñu euh, dal di ñu jàppale ci li nga xam ne moom mooy suñu situation parce que ñun ay citoyens sénégalais lañ yoo xam ne def nañ li ñu war a def kon nag am nañu au moins un minimum euh, d'attention boo xam ne mérité nañ ko ngir mën a am li nga xam ne moom mooy liggéey waaye tamit mën a am dund boo xam ne dund bu ñoŋ la bu ànd ak dignité lol motax ñu interpellé directement monsieur le président de la république ngir mu jël en charge solennellement suñuy revendication ngir indi ci ay safara ci ñu mu gëna a voilà en quintessence en résumé li moy li nga xamné mom def comme déclaration ginaaw biñu doxé place de l'obélisque ba rond-point RTS